festival bi ñu wax pencum ñaani bi nga xam ne ren moo nekk euh, neuvième édition bi euh, chaque année premier jour bi dañ koy jagleel élevage donc euh, comme at yi passé yëpp cette année dañ doon def ay consultation gratuite def aussi concours xar xar bu gën a rafet ay xari raas ci consultation yi ci fas yi consulté nañ à peu près ay cent cinquante fas ci gàtt yi aussi euh, xaw na passé tuuti ñaar téeméeri xar bon ci concours bi am na ay bélier yu mag ay kuy yu mag yu toll ci ay six yu am na ay xar yu jigéen yu mag am na aussi kuy yu yamaambay am na aussi euh, ay tëng moom ren amut daaw amoon na mais ren tëng yi amut donc ñetti catégorie ñu amoon jàngoro yi ñu gën a rencontré mooy surtout jàngoro yi nga xam ne ay saan moo ko def am na aussi benn cas bu am tey benn ka ehrlichiose ñu ko wax euh, cowdriose donc muy feebar boo xam ne bi kuttu moo koy joxe tam mën na wàll nit aussi naka mën na wàll am na ci tey benn cas benn ka suspect ñun xam nga ay sàmm lañ gis nga fi tey gis nga fi ay nag xar gis fi ay béy te loolu nag euh, meew mi ñu yore ci lay jógee indi nañ fi tey soow piir indi fi diw ñor Euh, élevage la bokk te nag kon buñ bés jëlee bis bi jaglelee ko élevage il faut ñu ñëw parti participer génne suñu liggéey ñu xam ne ñu ngi fii di transformer di soppali di defar lu neex di jaar